Asmoon gi gën la yuuxu. dinaa la bàkk jóobi la ndax TFM mooy. ah télé bi ñu ràññee jamano jamono. ci kaw yow ni pote daal yaa ngi koy dagate. waxul ma sotti la bés. man de jóobe naa la ndaxte bés ngay naan. ah mooy yokk sa tee. ah di ñu leeral di ñu indil cawarte waa bés ñun yéen la ñuy taab. Ah. waaw. eh, eh, eh, eh ah, nga def sa leen yi def ci sa ay gitaaru jiin. man damay gitaar. yéen mbaa du ngeen dof waa gis nga Pod. ñëpp artiste artiste ah. nekk ci dëkk bi. ñu war ñoo génne damaa bëgg nga wax monsieur le ministre Youssou Ndour. waaw mu jàpp ci culture bi jàppale jeune talent yi parce que man jeune talent laa damay. waaw waar ci aar bi. jeune talent la gis fu ñu lay wëri. waaw damaa bëgg comme lu mel nii rek ngeen génne ma ci. léegi nga takk gitaar nii sol guitare. waa ba pare may la ceinture guitare. waaw yow mii bon nga de. gis nga. Eh, koy koy nuyu ci citi bi. waaw dama ci nuyu waa Pikine bi nga xam fa laa ko tali bu bees deuxième robinet. waaw di la ci béggee yow mi tamit nga xamante yaa ngi daggate affaire yi. Oh. waaw yow waxuma la ciseau mais yow ah 37 nga yor di daggate affaire yi. waaw léegi loolu bu ma la mayee bés may def. waaw xanaa man naan ko rek mu gën a neexal baat bi. Ah. waaw waaw. ba tax na fi mu nekk nii xolal dama koy bàyyi mu nuyu ci trois personnes ñu jàll ci xolal keneen ko ah, koy nuyu koy may Khady Sow. akan di ko may euh, Mariama Mbodj ak Ndeye Aram Mbodj ak waa Ndar yëpp. trois rek. waaw waaw bàyyi ma def ko 22 rek. waaw demal demal beneen 2. waaw maa koy may waa Pikine ñoom xaar jeng ak ñoom Pape Samson. a doy na léegi nag ñu jàll ci keneen ku bëgg titi bi kaay nii nga may photo rek koy nuyu si titi bi mayoon naa la ko. maa ngi koy may sama mignon joli. waaw jërëjëf demal kaay yow. eh koy nuyu si titi bi. non bàyyi noonu rek. waxal kilo. lii maa ngi ci nuyu sama papa di ci nuyu suma yaay di ci nuyu waa Pikine waa ginaaw raay. koo bëgg. di la ko may man waaw. eh sa bon waay koy nuyu. di nuyu sama papa di nuyu sama yaay di nuyu waa Pikine waa Ginnaaw Raay waa école neuf. bàyyiwoo kenn. bàyyiwuma kenn. koo bëgg. man sama yaay. boo ko def si xol bi. fi mu nekk loolooy titi bi fi mu nekk dañuy jàll ci beneen clip bu saf sàpp ñu bàyyi leen titi bi mu di leen xoolal dëfal. man gis ma ñëw ci ñaari xale yu góor yi bàyyi leen ñoom ñaar ñuy defante noo tudd. man Dieng Mbaye laa tudd. yow noo tudd. man Modou Ama laa tudd. Modou Ama. waaw. waaye yow Dieng Mbaye yow koo bëgg. man may Maymuna laa bëgg. foo ko def. sama xol. yow koo bëgg. foo ko def sama xel fii xol bi laa ko def. Maymuna ak Fa ba tax na fi mu nekk nii may naa leen Abdou Guité Seck bi ko ciy nuyu. Hmm? man maa ngi nuyu. yu yu. ak ak euh, Matar. akkan ak Mbay. akkan di ko may Zeyna. ak kan di ko may Moussa mi. ak kan ak ñi may liggéeyandool fii ñëpp. su ma la mayee bés bi nooy def. xanaa dama koy daj daal di naan rek. xam nga ko. waaw bés goyaab la. lu muy def ci yaram. kii dafay dafay defar sa yaram quoi. waaw. waaw yow lu ma la bëgg a laaj. Rismon Djiz xamoo fu mu daan toog fii. Rismon Djiz. waaw Rismon Djiz moom moom euh, Amina Poté ko yore. ah moo koy toj. waxal kilo tasaare kilo. ayoo nit gan gi ma seet si. mbégte dong la ma yoot si. gan gi ma si. ñu naan ko Néné Toté mu def may kilifay kër gi mbégte dong la ma yoot si yar ga càmm ga ñott naa coono gën may jur Balla Balla. Balla nga tudd ba tey. waaw Balla yow njool nga de ñaata nga am. non 19 ans. mais Balla bëgg a ah. da nga bëgg nekk xamoo ko. foo dëkk. maa ngi dëkk Fass Mbao. foofu nga dëkk ba tey. waaw ana mi ngi fi. mi ngi dox ba léeg-léeg mu daw fe léeg-léeg mu xool ma reetaan sama xol bu ndaanaan léeg-léeg mu daw fi léeg-léeg mu daw fe léeg-léeg mu xool ma reetaan sama xol bu ndaanaan léeg-léeg mu daw fi léeg-léeg mu daw fe léeg-léeg mu xool ma léeg-léeg mu daw fi léeg-léeg mu xool ma reetaan nekk nii nee bi boobu bi ma taxawal ci moom laa koy tëjee ba tax na dama naan kon nu mu def nanga def sant yàlla noo tudd man Morgane ah Morgane ah? waaw noo tudd gravement Morgane laa tudd mais gravement laa Morgan laa tudd. légèrement. Morgan laa tudd ba tey Morgan nga. Morgan laa tudd. Morgan koy nuyu ci Abdou Guité. Abdou ban. man gens laa sonn si man du ma déglu yow noonu. ah mais ban ban ngay maye yow ban ngay maye. comme la noonu. comme clip bu la neex. clip comme. mais mayel Morgan sa turandoo wala ku la neex. non waaw moo ñëw Morgan may Morgan héritage. ah waa léegi doo ko léger nii nga di ko diisal. non naturel man noonu laa mel. Ah, Morgan bi ko ciy nuyu. ñëpp sama gars yi maquette man yëpp. ak kan. sama gars yi sama doom day yëpp gars yi nekk. bàyyi woo kenn. bàyyi bés waaw. bëgg nga ko. waaw mës nga ko naan. waaw est-ce que neex na. fu muy yegg. day yëpp sama yaram. <laughs> mais kii nag moo neex mais gën a am mais gën a loo may wax ci bés. bés bi mool na trop. lépp lay def man su ma ko naanee damay sentir nekk sama yaram. ci jàmm war na yàlla. mais loo bokk ak rappeur boobu nu mu tudd. Alaaji Maan lu ngeen bokk. loolu sama gaañ la. mais yéen ñaar nuroo ngeen di. benn lan sama doomu ndey sama gangs la wóor na yàlla. Ah. grand bu gentil la. mais yow yow yéen ñaar yow yaa koy ma ko de c'est que yàlla moo ñu boole maamu ñu nekk benn ñu nekk niroo waale maamu. yow neel kilo. kilo. noo tudd. maam xaa. ah maam xaa la nga yàq sa tur bi di ko def xaa. non gars yi rek. gars yi waay parce que dama may fan mais maam xaa koy nuyu si Morgan. non Morgan héritage koo ciy nuyu. ci Morgan. sama coopération yooyu ñoom Xaadim. ak kan Morgan gars yi si place bi ak sama gars yëpp gars yi si marché bi yëpp. koy entraîné. parcelle. kuy sa mbër. Modou Lo. fooy entraîné. parcelle. kuy sa mbër. Modou Lo nel kilo Modou <laughs> Morgan héritage bi ko nuyu. maa ngi ciy nuyu sama yaay ak samay rax. xam nga Morgan est-ce que. non non. xam nga Morgan. Morgan non non. wéykat boobu ba. waaw waaw waaw nuyu. maa ngi nuyu sama yaay ak samay rax ak ñoom ñëpp suñu waa koñ ñëpp. émission bi moo la tax a ñëw wala bés bi. non émission bi moo tax a ak bés bi tamit si la bokk. am waxal kilo bés. kilo bés. koy nuyu ci Morgan di si nuyu ñëpp. akan waa dépôt bi ak. di nga naan ku fay liggéey rek man bés rek lay dundee. gisoo ni ma mel. bés mooy joxe teen bu rafet. Redmond Djizz. waxal Redmond Djizz. Redmond Djizz. waxal Redmond naka fi mu nekk ni mu ngi noonu dégg nga. nu mu tudd. Redmond Djizz. Jasmine Bose. naka. naka. Redmond Djizz. Jasmine Bose. naka. Rizman ji Rizman Boos. waaw mais côté loo bëgg nag. waxal dafa Rizman ji. dafa rafetlu diis. naka. naka lépp. dafa Rizman ji. lépp. neel dafa Rizman ji. rafetlu Rizman diis munu. neel kilo bes. kilo bes. Ah, mool na mais xoolal sump bi laxasu si ah lii gis nga daa. kuy sa belle-mère. man sama belle-mère euh, ma xool. Euh, waaw indil kii rek ma boo ma jox rek baax boo ma jox rek moom. bëgg nga belle-mère. waaw boo ma jox rek baax na moom. belle-mère en fu muy jaay ci marché yi. fu muy. fu muy jaayee. fu muy jaayee fii. ah, ah waaw ko neex rek lay jaayee moom. Ah. papa papa papa ngir bul olofaar. papa papa.